Wah, ah, iya. Oh ya. ndox bi balé ci fossi jaxaso jaxasook ndoxu taw bi di rogalat ci tali bu bari kambu li lañu néméku fi ci cité kër bi nawet bi tambalé ba légui ñu jëkkee ci gox bi nga xamante ni moom la ñu mujjee sànc fii ci ndakaaru di ko ñaawlu. lii du du tey dafa yàgg ça fait presque plus de cinq ans c'est comme ça à chaque fois bu ñu tolloo ci période bi ci période hivernale bi nii lay demee su tawee ndox bi dafay mélangé wu ak ndoxu égout yu jóge fële di ñëw gis nga waxuma la oto yi sax même les passant ñi nga xam ne dañuy dox ak tànk sax dañu am ay difficultés pour jàll du ñu am accès ak fii cité bi nu mu mel ministère yi fi nekk. structures publiques et privées, yi fi yi société yi chaque jour les autorités passent par ici Les eh, autorités publiques ay kilifa dañ jaar xam nga comprendre suñu auto panne na dal suñu auto waaw bu fi jaar bu fi jaar tali bi metti na koy bu metti waaw mais

ñu wax ñi nga xamante ne ñoo moom immeuble yi ñu jéem a contribuer améliorer daal vraiment tali bi ndax état bi moom doy na waax trop fi nekk euh, boo fi duggee sa oto rek da ngay gis des fois ay affaires yuy décroché di yàqu ci oto bi sa di yàqu donc vraiment loolu bu ñu sañoon état bi dimbali ñu ci. li fi nekk moo solo ak ñi fiy xëy ak ñi fiy jaar parce que fii am na ñu fi nekk en ce moment di fi liggéey nekk fi. amna na ñoo xamee tamit dañ fiy jaar parce que souvent ñu bëri dañ fiy jaar di génn di jël VDN bi. tali bi aussi vraiment tali yi moi fu dekk par exemple euh, sama quartier tali bobu ça date de 66 tali boobu moo mais mais tay tali euh réfectionné wu ko euh, amul luñ ci défarat mais ba tey tali bobu nga fa té tali bi soko sélo cité kër googu dafa 10 ans mais déjà tali bi ñu commencé yàqu. cité kër góor gi di dalal ginnaw jam ñaajoo li ëpp ci ay këru kay mo xam ministère agence wala yu ni mel tabax ya yàññ lool waaye tali dara baxu ca. la plupart des ministères légui fi lañ ñu toog aussi ñenn ñi ngi kër euh, ñi ngi jam ñaaju mais li euh, vraiment c'est déplorable hein lii moom vraiment xaaruñu ko ñu parce que c' une euh, cité nouvelle cité bu bees la té infrastructure yu bari comme ay ministères comme ak yenen structure yo xamné fi lañ nekk li suñ ko gissé vraiment dañ naan lu ñuy ñaawlu la dal problème talibi la ak évacuation dem. non je ne pense pas bu des tam parce que les mako ko fatarñee eh, kii bële na na man ma fay ñu des ñu mais bi su su du dem donc kon bi problème mu yoon la am bu mu te amna à chaque fois day day toj bu ont mu muy ñëw moy nekk li demandé euh, wa assainissement xana ñëwul hein après euh, curé defal ko comme ñu ngi ko doon euh mu nekk ay ki yo xamné pré hivernal lay doon quoi en ah, pré hivernal ñu curé égout yi seet xamné dafa bouché ñu déboucher ko et que ndox mi su ñëwee parce que li si nekkee égout la jógee si ndox taw bi ñëwee day gëna day gëna metti métti day gën a ah. métti ligéyu ñu dara ligéyu ah. liggéeyuñu waaw liggéeyuñu ONAS ligéyu ñu mako wax ligéyu non ligéyu ñu parce que dama gis né way xam nga euh, hivernal ci waaj a jub comme ñom lu ñu doon def au début bu bu bu njëkk ba bu yag ba

des fois da ngay am accès pour dugg ci biir immeuble yi ci pour dem sa bureau xam à pied même à pied jàll c'est vraiment dommage Je ma ce que les autorités attendent pour régler problème bi parce que ça persiste à chaque année à ce moment-là ça se passe comme ça moo xam borom woto wala kuy dox ak ay tànkam jaar ci ay tali cité kër góor gi ci jamonoy nawet di lu jafe lool ñi fiy yeewoo ak ñi fiy xëy di joxoñ baaraamu tuuma mairie Mermoz Sacré-Cœur ak ONAS banqaas yooyee war cee wut saafara. Il y a que celui qui gère la la circulation des eaux Donc aussi à la mairie aussi qui doit faire son, travail. Mais je crois aussi même au moment d'installer ces bâtiments-là, les gens devaient penser à mettre un bon truc quoi, qui permet de faire passer l'eau. Mais je crois qu'ils ne l'ont pas fait. Parce que même en, en niveau, nous avons beaucoup de, de, de, l'eau qui sort des, égouts et qui envahit les routes. Quoi. Donc c'est un peu compliqué. si, il y a des boutiques qui sont immobilières, ah am ay boutique té mairie bi day ñëw di demander ay patente et tout donc warna mëna contribuer ci euh, tali bi ñu défarat ko waaw donc moom tammi euh, c'est de sa responsabilité vraiment on a aussi c'est pareil parce que assainissement yi mom ça ne va pas du tout ça ne va pas boy dugg boy dugg mom loolu moy ñëk nek ce ce sa stress boo jubee cité kër goor gi rek yaa ngi xalaat ci koñ bi nga il faut nga jaar fa pour liggéey waaw koñ bi moom dafa toj moom te entrée bi boo jugee Karak balaa ngay dugg moi lol, boo ñëwé point bureau aussi euh, vraiment euh, euh, les rues sont très délabrées état bi def ci il a plu à Dakar deux fois la fi mais je vous dis que taw na ba parlé, mais Tata bi batay mi ngi bi mi ngi te ko sax ci du de mais ci aiguille plutôt. parce que ndox mi soo ko soo ko jegee dafay am benn odeur quoi. jokkoon nañu ak ki yor lépp lu jëm ci wàllu réseau d'assainissement fii ci Dakar ngir mu indil ñu ay leeral ci yooyu la jafe-jafe. ONAS dafa renforcer ay camions uniquement pour loolu camions yooyu ñu renforcer tey jii ñaar ña biir cité kër góor gi lan la ñuy def dañuy curer di nettoyer tu euh, di nettoyer tuyaux yi. ak ñi nga xamante ni ñooñu dañuy nettoyer rek man li ñuy wax curage ak entretien am na ñoo xam ne la nga xam ni dafa fat bay génn ci ci regard yi ñoom ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy dindi bu ñu àndee kenn ku nekk jéem la nga la nga war nga def la la war nga def ko rek coono du am ñun nag duñu xaar nit def la mu war mais dañuy def ñun li ñu war li ñu war mooy fexe ba nit ñi nekk dans un cadre de vie idéal cité ouvrier euh, Kër Góor gi c'est une cité en chantier nit ñaa ngi tabax àggalaguñu bu du ñëwee di di teg seen ay jalu suuf ak seen jalu xeer du ñu xool fan ko war a teg na jege chantier bi rek wala ñu teg ko fa ñuy wax mbeddu buur buñ ko fa tegee léegi la si ëpp ci kaw kubéer yi lañ koy teg kubéer ki du ko àttan day ànd ak moom màbb wala mu xar su xaree day dugal suuf su bari suuf su bari soosu noonu dégg nga ndox euh, bu ci bu ci demee day doon ban day fat euh, boo bokk na ci lii waral bu bu nawet commencé tàmbali avril rek buñ ko séentoo nawet comme bii nii juillet avril dañuy commencé nettoyer regard yi yàqu ñu defaraat ku tegaat ci ay kubéer waaye li may faral di wax rek ndoxu kese du boucher lay boucher loxo doomu aadama moo ca dem ànd ko ak ndox ma bu dañee day boucher waaye bu fekkoon ndox mi génne ci kër gi rek moo dem ci tuyau bi wax dëgg yàlla loolu mënul boucher. ñi dëkkee foofu am lu leen metti lool ba tax. ñuy sàkku ci nguur gi mu taxaw ci seeni jafe-jafe ngir wut ci ay safara